association bi moom association bu mag la li ñu ci jublu mooy sécurité marché bi ba nga xam ne ñun fi ñu liggéey dinañ am jàmm ba li nga xamante ne bi comme li li ñu soxla ci ay ay recette di ko am ci marché bi du lenn duñ ko lekk duñ ko def neen mais dañuy fexe rek bépp problème boo xam ne marché bi am na ko ñu taxaw ci defar ko bañu séntu bañ a xaar meer parfois tamit duñ duñ bëgg di xaar meer ci yenn show yi moo tax dañu bëgg di am kees ci suñu marché kees bi moom liggéey mi ngi liggéey yeneen am na ay mi ngi euh, social la pour marché bi dina dimbali ay nit ñu bare bare bare aussi ci marché organisation bu bu mucc ayib moo fi am parce que am na association boo xamante ne bi mu ngi fii taxawal nañ fi caisse de social boo xamante ne bi képp ko am bànneex wala nga am nakhar dañuy jël si caisse googu soutenir la jàppale la si te yàlla rek a tax beneen bi si des mooy association bi xamante ne moom lañ fi taxawal euh, nuy gërëm monsieur le maire Albert Boubacar Ndoye parce que defoon nañu ñaari cantine parce que def des fois tolof tolof day bari daal muy laaj di laaj mu gi mu may nu fii ñaari cantine tabax ka chaque fin de mois lu si génn dañu koy def si association bi ku kuñ si war a subventionné kuñ si war a subventionné ñu subventionné la si. ah liggéey bi daal jënd ak jaay rek jënd ak jaay rek léeg-léeg nga daanu léeg nga am dara rek waaw dañuy jël ci kees yi rek ñu jënd ci kees rek jël wal bu paree delloo boromam maa ngi am dara ci waaw secteur bu ah dañuy dañ ciy jàpp moom parce que man li yor yëpp ci laa leen yor li soxla yëpp ci koy sama soxla njaboot gannaaw ay weer gis nga bi ñu maire ak préfet ànd nañ ak ñun ñu def désencombrement ci marché bi euh, def nettoyage jënd euh, fii mbalit mu bëree bëree bëri tuuri ko loolu yaakaar naa opération bu am solo la woon ñu defee opération bu ba ñu toogee waxtaan dañ doon dañuy tëral ay commission yoo xam ne ñoom ñooy res suivi boobu ba nga xam ne li fi amoon dootu fi amati mais commission bi depuis loolu di ñu jógee ci loolu ba léegi gis ñu benn commission bu fi taxaw. Massa Diène moom boo ko tuddee ay jafe-jafeem daanaka bari na parce que wax dëgg yàlla dagal comportement bi passé dañ defoon partenariat diggante maire yi ak préfet raxas dëkk ba mu set bale marché bi nettoyé ko mais depuis loor defar nañ ko ba mu normal mais depuis boobu ba léegi dafa amul suivi te boo gisee ñu ne marché jën dafa salté euh, marché jën salte na mais bu ñu amoon accompagnement salté bi dina wàññeeku parce que marché bi département bi yëpp parce que euh, ay 15 tonnes mbalit génn nañ ko fi te loolu du yoon bu ñu doon def chaque fin mois lu ñëw bale tuuri kon loolu dina wàññeeku. parce que nun ñuy nekk fi si marché bi kenn ku nekk sa place boo jaayee ba pare yaa koy nettoyé ba mu set dem teg ka léegi nag équipe bi xamante ne ñoo war a nettoyé marché bi ñoo bariwul personnel bi moo tuuti bu bëggoon nag ñu yokk personnel bi bu ko defee nettoyement bi gën a bari. lamp yi ñëw nañ fi montal ñu bi keroog bi ñu nañ yaakaar trop mais du yàgg bu tàkk mais ba léegi nii lamp yi tàkkul xamuñu lan moo waral kilifa yi ñu ngi leen di woo téléphone chaque saa passé waxtaan nañ ci ak préfet mu wax maire ne ko bo demee lampe yi mom na tak parce que fofu moom fo war am lampe parce que fi lu nekk na fi xew guddi buñu ñu ay torche lañu nité ay ay ay portable lañu lañu nité niitee jën yi lu nekk dafay xew guddi barki dem mu sàcc nañ fi ay jën valeur de té lool lepp buñ ko sàccee association bi fi nekk ñom ñokoy fay yaa ngi dégg mais mënu ci dara parce que autorités yi tamit do xam parfois lan la ñom ñëw nañ montal ñu ay projecteurs ñepp contant ci ba légui projecteurs yi lañ mat 2 mois ba légui ni mënu tak buñ sañon ngeen dimbali nak sacc yi bari na ci marché bi suñu jeen yépp nga manki ngeen jappalé ñu ci loolu ak ndox mi talal ñu lampe yi mu tak parce que bu lampe yi tàkkee xagn na ku ñew ji wut ci lu mo xamni ne ko bu gisee dina dem lampe yi buñ sañon ngeen dimbali ñu ci bu baax bo né marché dal di dépasser xaaliss fi ay millions mo fi nek amul ben porte amul ben gardien amul sécurité loolu jafé jafé la lu tolli marché central bu fiski amul ben courant na benn lampe buy tàkk fii bu ñu xëyee suñuy portable la ñuy taal wala ñu taal tos mën a nit suñu loolu du yoon te li xamante ne moom lañ seexaa état nu ngi koy def mooy bu ñu xëyee dañu dagga suñuy juuti tekk si loxo état kon état moo nu desel ñun moom dañu wax porte yi ba sonn arrêt bu nekk ñu ne dinañ ko wote ci wote ci bi di ñëw at mu nekk ñu ne budget bi di ñëw dinañ wote porte yi mais ba léegi doo ci am benn benn kii waaw am na benn jour woo dem nañ ci maire wax ak moom après mu yónnee ko ay nit ñu ñëw natt porte yi defar début bi ba andi won fi ay ño xamne ne ñoo ko waroon liggéey mais ba legui ni dal mu jul fen pass suñu partenaire la won da fay ñëwoon maire woñu ne dama am ben partenaire bo xam warna mëna naa liggéey ak yeen ñu ne ko wa mu woñu arbitre ñu ñu waxtaan ba jubo condition yi ñu tëraloon respecté wu ko won ñu am ak mom problème ba mu génn ak frigo yi nga xam mo daan congelé yooyu moom génn mu des frigo glace frigo fi des nii moom contrat am jeex na lu ñuy xaar moom mu mu libéré mu bi parce que am na yeneen activités yu ñu fi war a def. ñun am nañ yeneen méthode ñuy galaasee jën espace bi nii yu dul frigo soxla nañ frigo nag certes soxla nañ frigo bu baax a baax mais am nañ yeneen méthode ñuy galaasee jën fi nekk nii te duñ sonn parce que am na condition yoo xam ne ku ñu ko nar a duñ ko tegoo am 750 francs te loolu amul ci Sénégal ba mu amul sax ci monde bi foo xam da ngay fay 15 francs amul. chambre froide depuis daf ko dindi nuy jël sunuy jënit continuer sunuy activité di ko di ba léegi amaguñu ben frigo pour dugal sunu produit bi comprendre nga stock de glace mu fi defit Dana am lu mu fi retour nu ko defal sunu caisse mais depuis booba daf ko arrêté joxatuñu dara mais tamit nun euh, jaaykati jën yi ku leen xam dañuy bañ rek parce que ay femmes dynamique ay góor yu dynamique sawar ñoo fi nekk bu ñu xëyee dañuy organiser wu di galasé suñuy jën ut ku fa teg lu fa génne ñu dugalaat ko social bi boo amee dañu dimbali la bu sa jabar feebar nu jàppale la ut suñu kees daanaka am na ñetti compte yoo xamante ne yi loolu moo tax mu jox compte bu nekk am na président am na secretaire am na trésorier am na vice président grève mareyeur yi moom ñun dañ solidaire parce que dañ am benn kuréel boo xam ne moom la ñuy wax INAMS instant bi dañ bëgg a jógee ci moment bi nga xam ne ci la mareyeur nekkoon dem ci beneen moment parce que kenn reconnaître ko woon xamuñu woon lan mooy mareyeur joxuñu ko woon gëddaam ba Sénégal sosoo ba léegi président mareyeur mosul am ñi fi nekk ñëpp ay organisation rek lañ jiite ku nekk toog sa gox ne organisé na maa jiite mbooloo mi loolu nag lañ benn commission boo yoo xam ne day wër tefes yi di leen sensibiliser pour ñu def benn assemblée générale boo xam ne dañuy fal président marière boo xam ne ñëpp ñoo ciy ànd marière yi am président am kees am lépp ci loolu lañ nekk di ci liggéey bi ñu demee ba ci biir ci lañ am gis-gisu ne comme que instant bi nii li ñuy teg marière yi euh, métti na nañ jéem a grève ñu dindi yenn yi te am na ci war poñ ñu bari yoo xam ne bi ñu toogee ak ministre bi bi ñu ci waxtaanee ak moom d'accord nañ ci ak moom te am na financement yoo xamante ne yu bari daf ñëw rek jàll la secteur bi amagus te loolu du yoon secteur bu organisé woo am ay kilifa lépp lu ñuy def war na leen si si biir jàppale leen ba lu ñëw ñu jot seen cër jot seen wàll parce que loolu yaakaar naa mooy développement loolu mooy doxal dëkk bi. Macky Sall nan jàppale xam ne amuñu lu dul marché Tëngéej bi ndax marché Tëngéej bi marché central la dëkk bi la ñu duggee mu jàppale ñu rek ñu xaar fi yàlla.